ay at yu bëre ngi nii baykat yi nekkee fi ci diwaanu gàddaay ci département bu Kër Massar di def lépp lu ñu mën ngir sàmm seen suuf si tey jii nag bépp xeex bu ñu tàmbali woon amatuñ ci benn yoon yaakaar li ko waral nag moom mooy seenub kàddu jib na ndaxte suuf si nga xamante ne bii dafa nekk ci peggu géej gi maanaam littoral bi ay nit ñoo jóge fa la ñëw di ko caxat caxatee nu mu leen neexee ba noppi xañ leen seenub liggéey. 4 mai depuis 2018 ba Macky Sall déclenché forêt ba léegi ñun béykat yi xam ne ñoo ne fii daan suñu doole amatuñu jàmm ndax forêt bi li ko dalee yëmbal ba Tivaouane toll na ci huit cent vingt six hectares ci huit cent vingt six hectares yooyu noonu président Macky Sall jëloon na vingt trois hectares jox ko Daouda Ndiaye moo nekk ancien maire Yëmbal jëlaat hectare hectares jox ko le promoteur Demba joxaat lu mat six hectares jox ko Moustapha Diop muy famille Ndiobène fii nag Siam ñoo na fi ne am na fi hectare lu yàggul rek ay fan yu néew am nañu fi ñoo ñoom ñooy Sicap am nañ fi dix hectares te loolu yëpp ñu ngi ko def ci lu dëgg lu yoon. parce que dafa ñëw fekk Ablaye Wade dugal ñu fii parce que ñëwuñu fi nii rek par hasard. parce que bi biñ ñëwee euh, dex bii ngeen jàkkaarlool fa lañ nekkoon di bay bayum dër bi ñëwee nag ba dugal euh, canal bi ci dex gi baykat yi jooytu mu dugal ñu ci mu wax euh, eaux et forêts mu dugal ñu fii ci Fallawe loolu moo ñu fi indi ñuy bay te boobu Fallawe kenn ñi ma fi dugg leen dañ fi ñëw di daan suñu doole mu jékki-jékki déclassé forêt bi ñu koy ñaawlu trop parce que man ci victime nekkoon fii laa bokk. forêt bi ñun bu ñu fiy dugg boobu jaasi lañ fi doon duggee ndax ñemewuñ fi woon am na luñ fi fekkoon ñooñu ñoo fi jëlee am na ñeneen nag ñoo xam ne nekkoon nañ feneen di fa bay mais man fii laa a nekk fii laa mës a ñëw bi may dugg si tool fii secteur bi ma nekkoon man cundub maa fa nekkoon benn jigéen bu fa doon bay ñi nekk sama ginnaaw mun nañ ma seede ñi nekk sama ginnaaw mun nañ ma seede mais tey dafa nekk ne tey jii dañuy wax ak président Diomaye parce que lii nii la dal Ndingler moo dal waa fii te du defar waa Ndingler bàyyi waa Malika Plage parce que li ko dal moo ñu dal ñun ñëpp ñoo yem yile baykat jàpp ni ab ndogal bu bàyyeekoo woon ci nguurug Macky Sall gii moo leen wor ba tax ñu bëri ci ñi nga xamante ni bii dañu yëngu ci wàllu wàllug immobilier ñëw jël seenub suuf daal di koy pàccoo nu mu leen neexee ay hectares yu bëree bëri lañu nangu ci ñoom ba noppi xañ leen seenub àq ak seen yelleef ci wàllu liggéey. te fii nii ay béykat dafa nekk di daan seen doole ëpp na plus de 15 ans ñu ngi fi di daan suñu doole lii nag boo gisee mu yomb ñuy dagg forêt bi di ko dagg ci nu leen neexee du kenn ku ci ànd lu autorité administrative ndax kuy njuñ njaaj ñoom ñooy njuñ njaaj ñoo yombal liggéey bi nii fii nag ñu fi daan seen doole dafa bari lu mat deux cent personnes ñu fi daan seen doole te borom tool bu ci ne lu mu néew néew néew am nga ñeent wala fukki ñi nga xam ne yaa leen jël comme ay employé di leen fay chaque fin du mois ñun nag ay béykat lañu lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi ñu fii ñuy daan suñu doole ndax bu dee joxe rek ñun ñoo ko gën a yellool ñu ngi xeex ñàkkum xëyu liggéey ñi ndax boo xoolee fii yàq des jeunes ñu fi nekk baana baana yaa ngi fii mooy suñu jigéen ñi daan seen doole di jël fii ay marchandise ko yóbbu caaro yi ci bat ba batam yaa ngi jaxal ñu ko fi di daan seen doole jeunes yaa ngi fi dina daan seen doole borom sareet yi yaa ngi daan seen doole mais tey ñu xaj ñu sunu ak ak yeleef bëgg ñu jële ci jële bu ñaaw te li gën a doy waar mooy borom tool yi xam ne ñu ko jël ñu ngi ci ay dédommagement yu salte yu doy ay deux cent cinquante mille ay trois cent mille loolu lan la mën ci borom tool sama tool foofu la nekkoon ñu jël sama tool jox ma dédommagement bu doy waar bu yéeme man bi ma amee quatre cent mille laa six hectares yi mu jël fii bokkul ak neuf hectares u Demba Ka yi waaw Demba jël neuf hectares mu bi waa dédommagé ñu parce que bu ñu demee ba nga xamante ne nii bu ñu jëlee suñu yëf fekk ñu fi ñuy daanee suñu doole di ci tedd ñu nag suñu njaboot ñu jëlee ñu fa te duñ ñu jox lu ko jar loolu moom doy na waar trop. gannaaw ñi nga xamante ne bii ñoo di baykat yi dawalkatu sareet yi itam yëg nañu ne ñoom itam seenub liggéey dinañu ko salfaañee ci bërëb bi képp lañu yàkkaaroon ay at a nii ngir mën fee daanee seen doole. maasale bi ñuy maasale fii. nañ ko bàyyi pour que maanaam ñu mën a am liggéey parce que ñun fii lañ am pour di fi daan suñu doole wax dëgg fa yàlla maanaam bat bu ne ñu ngi koy dégg ci sareet yi borom sareet yi lii borom sareet lii waaye nag liggéey boo dem am na loolu ba ci borom oto yi am na ci borom oto yoo xam ne sa foofu soo xam ne jubuñu borom moto yii da ngay yor saak ñu romb la këf ko dem seen yoon liggéey boo dem loolu am na fa waaye tamit nag ñii liggéey ak ñii sàcc bokkuñu ñun nag yàlla dogal na ci liggéeykat lañ bokk ñun bokku ñu si professeurs yoo xam ne dañuy def wàllu dëngate dañuy gees di tox di mandi ñun nekkuñ ci loolu ay at ñu ngi fii di liggéey waaye maanaam liggéey bi ni meloon ay jamono pour ñuy ñëpp di ci gis seen bopp mënatul nekk parce que li ko waral mooy que ni jaay doole bi dafa ëpp maasale bi branloo bi dafa ëpp parce que tool yi fii waxuma la ñun borom sareet de mais tool yi société la li fiy dund lépp lépp lépp lépp ci tool yi yàlla xam na ni ñoom xamuñu ko sax fi ma waxee moo pare nii ñàgg laa war a dem te xam nga rek fekkoon fii am na comme ni mu daan mel noonu la meloon du ma dem ñàgg léegi obligé nañ jaay ñu doole nangu suñu àll bi fi daan daale suñu ñàq yaa ngi dégg te instant bii nii xoolal ñàgg ak caare ni mel si saret si fas ni méttee yaa ngi dégg bu fekkoon ne si dañoo bàyyi suñu suñu suñu àll comme ni doon daan suñu doole fii la la ñuy yem xam nga moo gën a oblige si fas yi moo gën a yomb si fas yi mais xoolal tey nga bëgg a bu jóge Malika dem ñàgg si noonu baana baana yenn yi xaaj bi ñu ngi ñàgg instant yi man la ñuy xaar ñoom laa war a jëli te fii la la la daan jëlee si yaa ngi xam nga loolu tamit neexul quoi xoolal ñàgg si saret si fas foo ñàgg nekk nga jóge ak saret poids digg bëccëg deux heures bi nga dawal wuti caaro yi dem war a sartewaat doo ko bëgg wàññeekuwaat ban heure ngay wàcc xam nga tamit xam nga Sénégal mooy loolu lépp ne su ko wax. parce que instant yii bu ci jëlee tool yi ñun fan lañ jëm ñun depuis 2007 ba léegi man maa ngi fii boobu ba léegi nag gars yi ngi commencé maasal yi di dem léegi instant yi li ci des ni buñ ñu jëlee ñun fu ñu jëm borom saret yaa ngi ni amatuñ liggéey ci tool lañ yaakaar tool yi bu ñu fi jógee ñun ñëpp dañuy dem tëddi kon xam kon ko dañuy wax ne nit ñi dinañ dem liggéey kon nañ ci bay tool yi ñu liggéey ñun loolu moo ñu ëpp importance xool seen yu fi taxaw yëpp ñun ñëpp a bàyyi suñu liggéey tey ndax teewaay lii nii parce que tool yi bu ñu fi jógee amuñu leneen lu ñuy def tool bu ñu fi jógee dangay dem di naan di gees di def leen di wax dëgg yàlla bëgguñu def loolu bu ñu sanoon dañuy bàyyi fii suñu tool yi ñu liggéey parce que loolu la ñu yaakaar. ñeneen ñoo xamante ne bii itam seenub yaakaar dafa tas ci bërëb bii di ñii ñu duppee ay baana baana yi la soxna ñooy jël lépp loo xamante ne bii dañu ko bayee ci bërëb bii ngir yóbbu ko ci gox ya goxaat yi mën ko faa jaay askan wi. mënatuñu am bagage gis nga ni heure bi jot actuellement ni midi ñu ngi si tool yi di wër amaguñu bagage est-ce que tool yëpp nangu nañ ko suñu borom kër ci tool yi lañ nekkoon ñu jël tool yi ñoom tool béy lañ tàmm amatuñ si luñ jàpp ñun baana baana ñun jigéen ñi ñoo tax suñu nit di liggéey instant pour ñu am bagage problème la ndax presque xaalu tool bi yëpp jël nañ ko. Mhm. ci suba ba tey ñu ngi wër bagage mënuñoo am bagage si lañ yaakaar suñu borom kër ñoo daan béy di ñu jox amatuñ fu ñu bay ñu ngi góorgóorlu tax suñu ndig di liggéey mais pour ñu am bagage coono la amatuñ bagage ndax xaalis tooj yëpp jël nañ ko te ñun tam si si la ñu suturoo bu ñoo dem di defi leneen dañuy tax suñu ndigi di liggéey li ñu ñaan daal mooy nguur gi nañu jàppale li ñu dese as tuut ñu si fort suñu wërsëg ñu wàccee ñu ko ndax suuf si niñ koy jëlee ñaaw na te ñi ñu koy jox amaana ñoo ñu ëpp moyen fuuf mhm. ndax yow booy xool kii di taxale cent franc deux cent téeméer nga xañ ko suuf jox ko borom milliardaire kooku lor nga ko. fii société la man mii nga gis man may toggal waa toolu ma cuun fii daal société la te ñii tamit suñuy càmmiñ lañ fii lañu am di ñaq par tamit suñu ñaq ñu mën koo jëriñoo daal nañu état may loolu tamit. fii la ñuy jëlee lépp lu ñu soxla lépp fii lay jógee mais bu neexul tamit dañuy jënd ñun daal li ñuy ñaan nguur gi mooy mu bàyyil ñu suñu tool yi daal ñu suñu càmmiñ ñi mën cee liggéey. ñun tamit ñun ñu fiy liggéey tamit di daan suñu doole ñu mën ci am dara tamit. mooy suuf si buñ buñ ñu ko mënee xëy naa delloo ñu ko sax mënatu a ne mais ni fi nekk ñu bàyyi ndax ñu loolu si lañ si lañu suturloo xam gor moomul xëy naan may ma wala dem di yelwaane wala di dugg ci leneen ñu ngi fii lañu daane suñu dool fii lañu am. bu weesoo yi la jeexital ci wàllu koom am na leneen loo xamante ne bii mën na fee gàllankoor muy alam gi. Ousseynou saar di baykat ci bërëb bii jàpp na ne tool yii bu ñu ko nangoo ci askan wi def ko ay dëkkuwaay dina indi gàllankoor ci environnement bi. dinañu rey mbay mi ci côté bii ci ak ñi fiy liggéey mais tamit euh, garab yi nga xam ne nii dagg nañ ko fii depuis Géejawaay ba presque Tivaouane Peulh loolu dafa am benn menace bu nga xam ne nii mi ngi koy def te te te ñi ko xam dëgg-dëgg mooy ñi fi dëkke ngelaw li jóge ci géej garab yi di ko téye garab yi ñu dagg nii tax na dëkk bi sedd bi mi ngi leen di bëgg a rey ngelaw kenn nelawatul guddi foo tëdd da ngay dégg ardoise yeeg eh, eh, xarang-xarang gi ngelaw lu bari li xam nga te loolu yëpp muy lu nga xamante ni lu metti la ci population bi waaw li commencé Géejawaay ba Malika diggante boobu nga xam ne nit ñi dëkk nañu ginnaaw foore bi noonu jëm benn barag côté yooyu yëpp ngelaw mu ngi leen di bëgg a rey parce que filao bi ci boppam la ñuy ñaan pour buñ ko mënee jëmbataat parce que dina baax ci nekk nu doomu aadama yi waaw mais buñ buñ buñ ko seetaanee loolu du baax waaw parce que euh, garab dafa baax ci réew xam nga protection côtière bi nit ñi bu ñuy doxantu am fu ñu jaar am fu ñu toog mën a féexlu loolu yëpp bu ñu bu ñu seetaanee bu président Diomaye seetaanee ak euh, euh, groupe am lii dina sànku te dina impacter lu bare bare ci population bi. ci bile xeex ñoom ñi di daan seen doole ci bërëb bi ñu ngi ciy sàkku ndimbalu ko njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi lépp rek ngir ñu mën a jotaat seen àq ak seen rawatina suuf si nga xamante ne moom rek la ñu yaakaar. ñu ngi ñaan président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mu xoolaat décret Macky Sall bi parce que man bi ma gisee ñu ne balaat du président fii ci littoral bi boobu man ñaawoon daa ñort ne suñu kaw la jëm. ndax depuis boobu ba léegi bàyyiwuñu ñu ba ci tool bii ma nekk nii nii nii rek ñëwaat nañu barki dem ba natt ñu bu dul woon nag li li li Sonko euh, arrêté travaux kon ñun jël nañ suñu xaaj ba dem bu yàgg encore waaw kon nag ñu ngi ñaan président de la république mu dimbali ñu ndax sonn nañu tàyyi nañu ay jaboot lañu yor suñu njaboot di fi daan suñu doole ba pare di jël ñeneen ñoo xam te dañ leen di fay waaw kon li boot suñu ginnaaw moo bari ñu ngi koy ñaan daal mu saytuwaat décret bii bu baax a baax a baax ñu dimbali ñu bàyyi ñu ñu liggéey daan suñuy doole ñun ak suñuy doom bañ a suñuy doom bañ dem euh, di dee ci géej gi wala ñuy def fi leneen. te muy dëgg. si nañ bàyyi ñi nga xam ne ay borom doole lañ toog seen kër seen loxo jot seen ginnaaw ñu jël seen i xaalis ak seen lii nañ bàyyi euh, loxo yu gudd yi loxo yu gudd yi nañ ko wàccee te jox nit ñi askan wi li nga xamante ne ñoo ko moom fii askan bee ko moom nit gënul nit fii dañ ñuy fi yëkkati def fi ay kër te ñun ñii fi taxaw ñëpp kenn amu fi kër mais tool yi ñoo ko ñaata at ñu nekk fi di ko liggéey ay koo fi koo fi dàqoon tey mu dem ñibbi këram bu ñibbee day dem sommet ak ñam àndal am na ñoo xam ne ay dëkk la jóge président Diomaye jaar na ci bay xam na li ci njëriñu bay nañ ñu jàppale moo moo ministre Ousmane Sonko ñu si ñoom lañ yaakaar saa suñu soxla yëpp ñoom ñoom lañ koy yem bu ñu mënee jàppale ñi am doole ñooy nekk ca kaw yor seen loxo di yónnee fii ñuy jaay borom borom tool dédommagement bi donte ñëw na am na ñu si jot de mais borom sare jotuñu ci amu ci benn borom sare di wax fii bu ñuy commencé A ba sedd lépp borom tool la borom sare yi ci lañ bokk parce que lu fi dugg ñoo fi dugal ci bagage kon maanaam tey bu ñu ñëwee tey di def di demancé dérangement dafa amul xam nga la mu am njëriñ nañu bàyyi suuf bi baykat yi bay borom sare yi mën a am bu ñu yóbbu mën a gis seen bopp ba ñu déggee ni que président Diomaye Faye génn na benn décret bi xam ne day bi mais bu mu ci yem lu ñu bëgg mooy wàcc ci le terrain xool li xam ne moo xew fii ci littoral bi ndax ñu ngi caxat caxatee filao bi léegi ñun ñoo xam ne ñoo fi des lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi ñu fi ñu liggéey ndax xamuñu lu dul liggéey sàcc ñu agressé wuñu loolu loolu ñu bëgg état bi dégg ko encore di waxaat président Diomaye Faye na wàcc le terrain xool li fi xew ndax jeunes ñu bëgg mooy liggéey gaa ngi caxat caxatee forêt bi di caxat caxatee littoral bi ci dëgg dul yoon kon ñu bàyyi ñu liggéey ndax ñun ay béykat lañu dañoo bokk ci li soqali réew li fi nekk ci ay jomtukaay ci ay liggéey dafa bari forêt bi amul lu fi dul bay oignon kaani salaat betterave lépp loo xalaat ñu ngi ko fi bay même sax bele bi sax fii lañ bari ko ba mu réussir kon nañu bàyyi ñu liggéey bu ñu mënul accompagner si suñu liggéey nañu bàyyi ñu liggéey. jamono ji fii ci doonu gàddaay xeex bi benn la lépp rek jëm ci sàmm suuf si nga xamante ne bii li ñu fiy bayee ci ay ñam bari na lool. te ñii di fi daan seen doole noppiwuñu benn yoon ngir deltu gannaaw donte sax am nañu yaakaar ci nguur gu bees gi ngir mu ñëw dimbali leen ba ñu jot ca li ñu moom.